toog ci ligne droite bi mooy bu dimanche képp kuy doomi Sénégal da nga yor sa carte dañ ñaan ginnaaw boo wéete yaag sax xel ba nat lu baax ci Sénégal lu baax askanu Sénégal lu baax suñu avenir nga jóg dem mu jaral la nga dem vote ji te naa ni boo nattee loolu sa xel doy li tribunal boo demee ci fañ gàncax bi di nga wooteel benn bopp parce que mooy coalition bi nga xam bu ñu tabax réew bi kenn mënu ko bañ déglu leen ñuy jàkkaarloo dañu naan ñoom def mucc nañ président Macky Sall mu ngi na dem parce que ñoom ñoo ko que le Sénégal moo moo bu jotee bu askan bi soxlaa mu ko wala mais ñun li ñu soxla mooy bu ñu déggee suñu yoon bi liggéey nga tabax loolu laa la respect des Sénégal li mandargal li président Macky def mooy sociale, équité territoriale personne n'ose aujourd'hui ci réew mi kon loolu moo am solo euh, jiite réew mooy liggéeyal askan bi jëmale leen kanam jële leen en point A yóbbu leen en point B ñuy santé ñu ngi avancé ndaw ñaa ngi avancé xam nga lan moo ñuy tënk ne mooy nan la ñu fexe ba paral xëyu ndaw ñi ci bi parce que notre population dafa jeune mooy comment loolu nag mooy li ñuy def créer industrie créer ay zones industrielles créer ay domaines agricoles communautaires créer les infrastructures nécessaires yoo xam ne dañuy porter suñu pour que cette économie capable de créer le maximum d'emplois loolu mooy agriculture ji des ay naxee mbaay la bombal politique la ah bonjour di amalgame yi di diffamé di sos loolu jëmul réew kanam fen ak diffamé ak sos moom mooy nekk un programme de gouvernement monsieur le ministre état d'esprit très foog naa ne ñëpp confiance la ñuy def parce que ñun ñu ngi waxaat suñu askan ñeneen ñi ñu ngi xumbal ñu ngi dajaloo seen biir ñu ngi xumbal ñu ngi làpp seen i député yow am na ni journaliste moom la newoon ñii bu ñu gañee ñen ñooy doon seen député à l'Assemblée ñu war a jumaa làpp jël parce que kenn xamul man la ko donc confier ce parlement deuxième institution de notre système démocratique ah ñoo xam ne xamuloo leen ay incultes parfaits et ça c'est faire jouer à dama estimer le peuple sénégalais qui vote depuis mille huit cent et quelques dafa dépassé période bi voilà dafay def des choix matures des choix réfléchis